سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا نيوب نيلن دي زيارتي ويرو تدوي أكي بس مقبي دين دي نوكال كلفة تدوي ديكو نيانا لسنو بروم sàmmal nu ko aar ko dëgëral ko kàttanal ko yàggal ko lool ci suñu kanam ñu ànd ak moom ñu yàggale mboolem ay yéeneem ak i naalam ci liggéey lislaam ci toolu sëriñ bi di ñaan weer wi li mu làmboo ci ay ngëneel ak i barke ak yiw yépp su borom baaxee na ci lu kawee suñu jot nangul na ci suñu jaamu yàlla jéggal na ci suñu rëcc rëcc ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin lépp rafet dañ teeweeti ko déw yu baree bari te bu ñëw rek gën ci ñun gannaaw loolu suñu waxtaanu tey dañ koy jëmale ci loo xam ne dafa amuk jokkoo ak koor amuk amuk jokkoo ak weer wi ñu delloo ci alquranul karim dañuy gis sunu borom fi muy ñuy digale koor daf ñoo daf cee waxaale loo xam ne njariñ loo xam ne ñii woor war nañ ko cee jëlee te mooy ragal yàlla yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laalakum tattaquun kon laalakum tattaquun ji mooy ngir ngeen ragal yàlla kon ci aaya bi li tax ñuy digle koor li tax ñu war di woor ñu topp ndigalu yàlla mooy man cee jële ak ragal yalla ragal yalla di meññetum diine nga xam ne lu am solo la ndax jëf yu baax yépp lu muy bari bari ña ci yàlla ya ci yàlla yi nangu mooy jëf yu baax yi ya nga xam ne ña koy def ragal nañ yàlla innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ragal yàlla mooy tax kon yàlla nangu jëfi jaam bi moo tax ci masalik ca njaalbeen ga rek dañuy gis sëriñ bi di ñu di di di ñaan suñ borom boole ko ci ñu ragal yàlla boole ñu ci allahuma jaalna min almuttaqina alladina tataqabalu minhum kon loolu day wane ne am na solo ragal yàlla yit mooy tax nit suñu borom am ci moom faale ko ba bu ko ñaanee mu mu nangu ko ko waaye mu ko bu ko ñaanee mu nangu dikkati ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu waxee ne ku ku ku ne ci tukki bu ñaanee yàlla yàlla nangu ko mun waaye am na koog moom daa ne ci tukki di ñaan yàlla te du ko nangu te du ko wuyu ngir la muy lekk dafa xaraam la muy naan xaraam la mu sol xaraam la muy dundee xaraam muy tàll loxoom yàlla nu ko yàlla wuyoo kon ñàkk yàlla moo tax yàlla nanguwul ak ñaanam kon ragal yàlla mooy tax nit ki bu ñaanee yàlla yàlla nangu ko ragal yàlla moom mooy nattuwaayu ngëneel ki ka gën fa yàlla buy natt nit da tolluwaayu nit fa yàlla tedd nga ak daraja ak ngëneel fa yàlla moom mi ngi koy nattee ci ragal yàlla ku ku ëppale ragal yàlla mooy ki gën a baax mooy ki gën a tedd mooy ki ëpp daraja inna akramakum indallaahi atqeekum ajjana itam ñi ragal yàlla la ko yàlla dikk Sari amu ilama wafiya shi miroddi kuma janet naardu hasama awat wala du kongitet wala ni ama darun muttapiin, kon ajarnya kerup nyara gari allah, nyamduka ya ku yalla dik, kon gohi dewan am sorogu raga yalla ya am sorog, raga yalla ya it, nyira gari allah, sun boro mbla yalla sop bula yalla bugger, wala wahi habu muttapiin, tahi muimenggo seni bir, muilen dioror seni bir di leen babam, boppam wallahu waliyul muttaqin yonent eh, bi sallallahu alayhi wa sallam bi am na ko doon sàkk ci moom mu dénk ko mu ne ko usik bi taqwallah fa innahu kulli khair dénk na la ragal ndax yiw ci la kon ginnaaw koor dafa bokk ci liy jox nit ki ak ragal kon nafarat bunt bobu Euh, laabirante ci gëstu ci sabab yi koy taxaam am dinaa ndimbalu yàlla am na ci solo moo tax kon waxtaan tey mi ngi jëm tomb bi ngi jëm ci mbir yi nga xam ne bu ko nit ki jàppee farlu ci mën na ko yóbbu ci mu ragal yàlla bokk na ci kon koor gii ñu wax kon koor bokk na ci lii maye ragal yàlla ndax ki woor dafa bàyyi xel boroomam dañ ko dañ koo bàyyi dañ koo bàyyiloo li mu gën a tàmm gën koo miin mu gën a dëppoog bakkanam muy bànneexub ñam ak bànneexub jaxasoog uh, kam kam kam nooloon kam kam bokkal uh, kon bànneex yooyu nga xam ne yu yu dëgër la ci nit ñu bàyyiloo ko nit ki mu bàyyi ko te ki ko ko bàyyiloo gisu ko gisu jëmmam waaye xam na ne mi ngi koy gis di ko dégg di xam li muy def nga xam ne lu mu wéet wéet du ko tax jege loolu muy bàyyi def googu muy def xelam ci yàlla di fugloonteeg moom li mu ko te muy lu tàmm lool miin ko mu dëppoog ba kanam mu di ko bàyyi loolu da koy tàggat ci di bàyyi ay tereem loolu nag bu dëgëree ci moom mu daal nekk ku ragal yàlla moo tax kon koor weeru koor weeru tàggatu la ci ragal yàlla xam noonu nit ki tàmm ma bàyyee xel boroomam ba li yàq ko du ko def bu demee ba loolu nekk jikko ci moom day daal di nekk ku kuy sori tere yi di taqoog ndigal yi kon koor bokk na ci liy taxa ragal yàlla julli bokk na ci liy taxa ragal yàlla fonk julli di ko def ca waxtu wa te di te ragal yàlla ci biir julli ci fugloon teg sunu boroom bokk na ci liy tax a ragal yàlla inna salaata tanhi ani faxshaai wal munkar kon loolu it bokk na ci yi tax a ragal yàlla mooy fonk julli te di ko defee nañ ko santaane te di ca teewlu ak a ragal yàlla jaamu yàlla yépp it farlu ci jaamu yàlla rek day tax a ragal yàlla yaa ayuha nnaasu ubudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laalakum tattaquun suñu borom mi ngi wax fii ni yéen nit ñi jaamu leen seen borom bi nga xam ne moom moo leen bind bind ña leen fi jiitu woon ndax ngeen ragal yàlla kon sax ci jaamu yàlla mën naa yóbbu nit ki ci mu dem ba ab xolam toj nooy mu yëg ak ragal e, di wattandiku tere yi di sax ci ndigal yi ndax jaamu yàlla day yar nit di ko tàggat ci ak walladina ihtadaw zaadahum hudan wa aatayhum taqwahum bokk na ci liy taxa ragal yàlla am xam-xam xam xam yàllay digle xam li muy tere li yàlla digle xam ko xam lam ca dële xam li muy tere xam lam ca tëkkoo di xalaat di xam li mu bind li mu bind ci ñu jàkkaar moom di ca xalaat di gis ak xereñam di gis xam-xamam melo mi tedd yi di feeñ ci jeexiti melo yi di feeñ ci jëfam ci li bind xam-xam boobu dana taxa ragal yàlla innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama kon sàkku xam-xam ak di ko dol di ci dolli ko saa su nekk tey jëfe la nga xam ngir jëmi yàlla loolu mën naa taxa ragal yàlla moo tax eh, buñ dalo ci masaayu ko jinaan sey bi ngi ciy tegtaloo waxi borom xam-xam di wax ni al ilmu ma aksaba xashyata al alim fa minha fajahilun hilun mulim xam-xam bi am jariñ moy bi tax borom ragal yalla mi xam lepp waye xam-xam bo xam ne ragal yalla andu ca du def ragal yalla ci xolu borom koku borom mo ku xamul dara ku dekk ci def ko yadd ñoyam motax tax mu ne bu nit ki jeexaloon fànni xam-xam yépp teg ko te ragalul yàlla duñ ko jàppe muy borom xam-xam ndax la xam-xam di jari nekku ci moom inna allazi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun kon farlu ci sàkku xam-xam ak farlu ci di ko jëfe ngir yàlla di ko sellal loolu bokk na ci li dimbale nit ki ci mu ragal yàlla waaye di bàyyi xel kàttanu sunu borom di xalaat ci jëfi sun borom yi tegtale kàttanam di tegtale ak màggam loolu it bokk na ci liy taxa ragal yàlla ya ayuha nnaasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا في تي اي بي سون بروم داف تي ديغلي راغال ragal tudd ci ay mbir tudd ay mbir yu yoo xam ne bu ci defee xelam dana ko dimbale ci mu ragal yàlla gi ci ragal yàlla boobu ñu koy digal bi ci njëkk mooy mu xool kàttanu suñu borom ci boppam ci ci jaam ci ci moom moom muy xalaat mu xool kàttanu boromam kon ci aaya bi amna na ñetti mbir yu yu suñu borom ak ndigal li lo xamne bu ci jullit bi dafa xelam man nako soñ ci ragal yalla moy mu xalaat ci kàttanu suñu borom gi feñ ci bind gi bind doom adama yépp jël leen ci jenn jëm xam kenn nit la sàkk tabax ban ëf ci ak ruux mu doon nit jóge ci ak lu deewoon muy suuf jëm nekk doon doon luy dund di nit muy kenn nit ku ne cundum mu jekki ba mu soob ko mu jël ak faar ca jëmmi kooka kooka bind ca jigéen fekk ki njëkk bind góor muy aadama mu bind jigéen rocc ak faar ci jëmmi aadama euh, defar ci jigéen muy muy xawaa ci ñoom ñaar la génnee ay góor yu baree bari ak i jigéen yu baree bari yoo xam ne ci jamono ji ñu ngi leen di lim ci ay milliards yi ay milliards milliards yi nit euh, yu dund ci jëmmi jamono euh, te ñëpp jóge ci kenn nit loolu lay wane kàttan sunu borom goog ki def loolu ku koy ku ko xam war nga ko ragal mu ne na ngeen ragal yàlla mi nga xam ne ci moom ngeen di laajante àq kenn ku nekk àq ju la joo am ci sa moroom rek yàlla moo la jox àq joojee àqi waajur àqi way dencante àqi doom àqi dëkkandoo àqi àqi mbokk sëriñ àqi taalibi àqi ku mën a doon rek àqi jullit yi nga xam yépp ku ci nekk am ci sa moroom sa ko jox yàlla moo ko doxal ci moo moo la ko jox di digal sa moroom mu sàmmante ko yow it mu am lu mu la war lu mu la kooku it am àq joo war a sàmm ñëpp nag yàlla tiim leen di leen fuglu di xool ba xam kenn ku nekk lu muy def ci sàmm ak yooyu kon nit ki bu xamee loolu it dana na ko yokk ak ragal yàlla ak it xam ne yàlla mi ko tiim inna laaha kaana aleykum yàlla mu ngi tiim nit ki maanaam nit yàllaa ngi yàlla gën a jege nit ki boppam li ki xalaat ci xelam te waxu ko sax yàlla xam na ko li yàlla xam ci jëmmi nit ki man ko ci moom nit ki xamu ko ci boppam mënu ko ci boppam kon yàlla gën a jege nit boppam wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kon jege gi yàlla jege nit di xam di gis lépp li muy def di dégg lépp li muy wax di xam lépp lu muy def te lu ci nekk mu di ko du ca sàggan du ca bàyyi dara mu rëcc lépp dana ko da koy bind da koy xam ba noppi bindulu ko bu ëllëgee ñu fay ko nit ki lu mu ko ca jégalut ci lu ñu lu ñuy toppe loolu lépp bàyyi xel ci loolu kon mën naa taxa ragal yàlla bokk na ci liy taxa mën a gën a ragal yàlla di fàttaliku faatu ak mbiri bàmmeel ak yee ca kanam yépp nga xam ne nit xam ne ak dundam lu mu yàgg-yàgg bis dana ñëw suñu borom yebal malakul mawti mu ñëw jël si ak ruuxam Euh, yóbbu ko ca sunu boroom ba ko bindoon indi ko ci kaw suuf te doon ko digal di ko tere war ko mu taxawar a taxaw ci kanamam nag mu xisaab ko ci ndigal ya ak ca tere ya fab ak ruuxam yóbbu mu teqali ko jëm jëmmi yaramam lay yéeg asamaan lii des ci kaw suuf euh, ñu war a jekk bi jëmmi jamono loolu euh, ruu gi war a dellusiwaat ci jëmmi yaram yi ginnaaw bu ñu ko tabaxaatee fàttaliku kon teqaliko googu nara ci diggante ruu gi ak yaram ñu ko tuddee faatu te su boobaa am na lu koy jiitu ñu koy wax sukuraat te muy waajtaayu faatu rek nga xam ne su boobaa nit ki suñu boroom day yokk ay yëgam lépp lu ko umpoon da ciy tàmbalee teg bëtam tàmbalee teg bëtam ca la ca kanamam lañ ko doon dikk te te mu waroon ko mu doon ko gëm te mosu koo gis bu fekkee jullit la woon mu tàmbalee teg bëtam ca loola ci biir wàccaayu rek te demagul bu tàmbalee di waaj rek lay daal tàmbalee gis la ca kanamam tàmbalee gisit li ci ginnaawam ak dundam li def ci dundam ay jëfam ñu tàmbali ko di ko gaaral ay pas-pasam li mu façon ci xolam la ca di ay rëcc ak i njuumte ak i jafe-jafe ak i jubadi ak i bokkaale yooyu yëpp mu tàmbali koo gis gis ñaawtee fi jëfam gis rafet rafet ya loolu lépp di ay jafe-jafe yoo xam ne yu mu jànkonteel la wa jaat sakratu mawti bil xaq dalika ma kunta minhu taxiit kon loolu taxawaay boobu itam di ko fàttaliku bokk na ci li taxa ragal yàlla nit itam bu demee ci bàmmeelam ñu gas ko suul mu tàmbalee jànkonteeg ay ay ay jeexiti jëfam su boobaa te xamagut lu lu lu ko fay teeru ndax nit ki li fekk ak boo xam teqali ko ak yaramam war a am ak wóolu ci mu jëm euh, ndax waxtu yi faatu seytaan day dikk taxawu ko temm fas yéene du yóbbaale pas-pas fas yéene yàq mboolem ay ay jëfam euh, moo tax sëriñ bi di wax ne bu leen wóolu mukk pexem seytaane li fekk seen ru génnul seen yaram ba ba taqali ko moom ba noppi لا تأمنوا مكائد الشيطان قبل فراق الروح للأبدان لأنه عندما مات يأتي شخصا لكي يحرمه الطاعات آه، كون فوف تم تخايبو خط بوبو تم نيكي ديكو فات ديكو فات ديكو لا تي غيناو فات نك خام داني واخ ني سيرين بي داي واخ ني فاتو غنا متي لپ لوكو جيتو واي لپ لو نيو غنا فات نك مو غنا متي فات سي بوب موم لوليت نيت ديكو باي خال ديكو فات ديكو فوم تول مانا كو تخارغال يالا moo tax sëriñ bi di wax ne wa laazimi nafsa bi zikri l mawti wa zikri ma minhu amaama yaati min maradi l mawti wa sakratin lahu wal qabri wal xashri wa raaqib hawlahu kon di xalaat mbir yawmal qiyaam dekki ga ak dajaloo ga ñëpp yi dajaloo ci benn barab ci benn pàkk képp ku yàlla mas a bind ci ay nit ak jinne daje ci benn barab sancaloo mel nañu juddoo woon yàlla di atte ñëpp nar a atte ñëpp ñu taxaw di ko nekk mu yàgg lool bu jë bu ci ñoom ba ñuy sàkku sax ku ku leen tinu dem sàkku mu mu atte leen ak la cay topp lépp nag ci jël téere jëf yaak jéggi siraat ak euh, xisaab ak ya aji ca yooyu yëpp daal di ay mbir yu ay xeexoo yu mag a mag yu ne ci kanam nit te mënu ca mënuta ñàkk mu yàgg ca tam bis mi ngi dox jëm ca yooyu yëpp bokk na ci lii war a tax a ragal yàlla kon lii daal lenn la ci ay tomb yoo xam ne mën naa dimbale nit ki ci ragal yàlla gi nga xam ne moo tax ñu farataal koor kon ñu ngi tënk fii kàddu gi di ñaan suñu borom boole ñu ci ragal yàlla ñi allahumma ij'alna min muttaqina alladhina tataqabbalu minhum wala taj'alna min alladhina dalla sa'yuhum fi hayati dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a yal na yàlla nangu ñaan gi ci wàccu Cheikhul Khadim radiallahu anhu wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ummati wa sallama tasliman kasira